موطن دعا الرهبان أنجانا جانا مبين تتابعت الهواتف الشفين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk جلتي yi ak fu jullit mën a nekk ci àdduna ku dégg loolu xam Alhaji Idrissa Gaye responsable moral fédération daayira Ashabul Kahfi orateur international moo leen di fàttali gàmm gii nga xamante ni ñu ngi ko jàpp ren samedi 23 juin 2018 fii ci Thiès ci Parcelles Assainies unité 1. ñu koy amal ci ndigalal Serigne Babacar Sy Mansour Khalife général des Tidianes Serigne Sidi Ahmed Sy ibnu Serigne Babacar Sy Serigne Pape Malick Sy porte parole famille Seydi El Hadji Malick Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy ibnu Cheikh Seydi Mouhamadoul Mansour di ko amal ci ndigalal Serigne Mounirou Ndiéguène waaye nag ci teewaayu Serigne Maodo Sy doomu Cheikh El Hadji Abdoul Aziz waaye ci teewaayu juróom-ñett ñetteelu promotion bi nga xam ni ñoo àndoon ak moom dem baytilaayil xaraam daayira asxaabul kahfi ànd ak daayira muxsinina wal muxsinaati di leen yëgal vingt-neuvième édition gàmmu gi nag ñañu ko daan duppe kenn soppiku ci alxaaji xalifa kan alxaaji yuusu jóob mansour alxaaji keeba njaay alxaaji duut njaay presta waaye nag di ko yëgal diaspora bi yëpp teg ko ci loxol sëriñ sidi ahmed si bu itfa américa waaye mbokk yi programme gàmm gi samedi 23 juin bu ñu xëyee jàng ay kaamilu alquran lim boo xam ne laa tuxaddu wala tuxsa def ay azkar ñaan yàlla def ci réew mi jàmm ak yi nga xam ne moom la ñu dëgmal ñaanal jiitu réew mi ak soxnaam waaye nag fa tabaarakallaahu ñaanal ki nga xam ne mooy suñu wayjur alxaaji xalifa gay alxaaji abdalaay gay sëriñ abdal aziz njegéen ajaratu nday am satu gay Adja sek 17h cérémonie officielle bi dor ñu dalal ñi nga xamanteni ñu autorité étatique yi ki len di dalal moy ki nga xamanteni moy gambogi borom gambu gi alhaaji alun sar mi nga xamne moy ministre du commerce 21h ñu tambali jàng yi ki ko daan jàng moo koy jàng alhaaji Doudou Diaw ànd ceeg mbooleem taggkatu Seydina sidduna mohammed ka ko daan waxtane batay tey koy les de l'islam tafsi abdourahman gay and ci ak rakam imam Mouhamadoul Munir Wassalamualaikum warahmatullahi wa taala wa barakatuh إلهي يا إلهي يا إلهي